fukki waxtu lañu joxoon dig daje taskatu xabaar yi balaa waxtu bi di jot ñu daldi jot kayit bu soqe ko ci autorité administrative bi. dañu léser dañu spolier. sous préfet interdit ñu dem si si aéroport bi acte boobu posé ko si collectif bi rek da ko posé si autorité yi fi nekk ñun ñëpp. teewul ñu daal di wutali beneen barab. góor jigéen mag ak ndaw ñu daal di daje ca Ngor daal di ci ànd ak autorité coutumière yi ak administrative yi lenn rek lañuy ñuy sàkku ñu daal di leen delloo seen suuf. esprit yi am fii wax dëgg yàlla bëgguñu ko effacer. ay nit ay jàmbur ñoo di fi dugga ñun ñu ne duñ fi dugga boo gisee ni ñu daggee ni ñuy xare ak ni ñuy móole buñ fa duggoon tey xol dana jeex. régime yi di wëy seen njàqare di gën a bari ñoom nag dañoo muñ ba seen bool daal di fees. seen suuf rek lañuy laaj laajte wa ilaa ñu daal di leen dégg. à force nag du ñu pompé dinañ am koo xam ne fa la àgg te bëgguñu àgg foofu ak ñoom. état continuité la nag ñuy lancé waat le gouvernement de Diomaye projet bii tax ñu nekk fii nañu ko respecté boobu boobule collectif jébbaloon na ab kaayit gouvernement bi fi nekk fukki fan ak juróom ci weerum avril bi ñu génn gouvernement wu Ousmane Sonko nag mu mel ni mémorandum bi moo ngi seeni yoxo ba tey. lii nga xamante ne moo fi jàll muy doon loo xamante ne àq ak yelleef yu ñu xañ dañu ne lii dinañ ci xar suñu tànk tubéy. layookat bi maître Clédor Sène ñu daal di koy daje balaa moo àddu nag. gannaaw ay simili yu ñu waxtaan ba pare mujj naa jël kàddu lam ca wax moo di faaw ñu delloo askanu lébu seen moomeel